ci biir yeewi askan déjà boobu problème yeewi askan bi la waaw. kon mu mel ni kon bett la li xew jamono ji seen biir. lan ci. dinaa ci ñëw mambay euh, Mame wax naa ko sànq. Mhm. ci euh, coow li. Mhm. Euh, diffamation Ousmane Sonko yaa ngi may wax sànq ni sax maa la ko yëgal. Mhm. que yónnee na ko huissier soo moytul dossier bi daañ ko yaat ndax am na fu mu teg woon te ku mel ni Ousmane sonk it pour mu dem ci ay élections faw li gàllu ci ay. loosam jëm ci wàllu yoon mm-hmm. loolu féete boor mm-hmm. ba ñu bëri sax di njott ni su dee nii candidature xëy na dafa nar a takk ci yooyu lay takk ci ñaari dossiers yooyu nga xam te xëy na tegu na ci moom bii ñuy tudd nii candidature Ousmane Sonko bii ñuy tudd bu naree am lu ci lu ci lu ciy takk mm-hmm. xëy na ci euh, dossier diffamation bi ak lam ci jëlee ci ci ci ci penagum fii ak euh, décision de justice bi di bon yegg euh, ca cappaandaw ga nga nga baal ma yow yaa war a man ma tontu. oui mais ba delloo la benn question bu ndaw <coughs> yow gëm nga gëm yàlla ne dossier caaxaan boobu war na mën a gàkk candidature président Ousmane ko ak moom ngay wax nu moom mbay ma mbay ña ñaata yoon la osé toog ci télé rajo fune tuuma bu ñaaw bu ne jël ko teg ko le président Ousmane Sonko Sénégalais yi di ko déglu muy toog di ci waat ba ci problème président Ousmane Sonko ak aji saar mii ñaata yoon la toogu tale di jël ay tuuma yu metti teg ko ci ndond Ousmane Sonko di ci waat c'est-à-dire nga il faut que soit sérieux il faut qu'on soit sérieux mosoo cee wax li nga xam de mosoo président Ousmane Sonko bu ko yóndee UC c'est tout fait normal te damay dëggal loolu ne yóndee nañ ko contenu bi nag xawma ko avocat yi ñoo ko xam waaw hmm. ah, mais dossier moom dem na ci moom te mën na koo wetti mais bu ñu yaakaaree ne seen dossier caaxaan boobu ñoom seen bopp sax xalaatuñu ko ñoom xam nañ ne ñoo la gën a xam ne san dossier caaxaan boobu. munoo dossier diffamation boobu. waaw yow muy dossier caaxaan ban diffamation ban diffamation. moo ci mën a rek nga ni caaxaan te doo fa teg dara. xam nga au lieu ñuy naan fi dossier cest à man ce que je veux comprendre les Sénégalais yaakaar naa ne li nga xamante ne foofu la ñu war a jëm mooy man su ma nekkoon à sa place au may toog naan carrément ne damay yóbbu diw ci yoon parce que daf maa diffamé en tant que ministre de la République il faut d'abord chercher à laver ton honneur naka. sumbeeku jébbalu boppam yoon ne leen audité leen ma. def na ko ñooñu bu ñu ko defee ba pare ba génnee conclusion yi teg ko sur la table su boobaa la mun a am sañ-sañ ne carrément ne man bàyyil ma dem porter plainte di wax di wax di wax. da nga jàpp ne dafa def. defu ko ko loolu la ci li ñu koy tuumal. Hmm. ñi ko wax bëri nañ. yow la wax. te ndax sañ na lu ko ëpp. souvent bu ñu lay dégg ngay wax ci ku mel ni Mame Mbaye Niang da ngay mel ni koo xam. bu baax koo jot a dundal. bu baax lenn kese laay rëcc. mooy vraiment di ñaan yàlla yàlla may ko euh, féex fu mu tëdd xare ko arjan bu gën a kawe muy sama frère Alioune Badara Cissé coow yii may wax ni ci gos bi boo gisee mu bëri ay lënt lent ainsi suite muy taw. Mm. tey jii. mënumaa teg yeneen yoon ci kawam parce que kookoo fii nekkul c'est le témoin oculaire ci secret bu bëri bëri bëri bëri. ma mbay xam nga sénégalais da ngay toog di wax benn mbir ñuy xool feneen fi ñu koy jaaree mais Alioune Badara Cissé tey jii bu dundoon bu dundoon li mu koy ñaan mooy demal jégalu ji Cissé. Hmm. kooku xam na lu bëri te ma doon ko ma respecté naw ko yàlla na ko suñu borom xale aljana fu mu tëdd ma la benn mbir 2015 hmm. le 3 février 2015 su ma décidé pour dugg Pastef ginnaaw yàlla conseil sama mag boobu di Alioune Badara Cissé moo la conseil pour nga dugg Pastef ah bien sûr naka explique ginnaaw bi ñu lancé Pastef officiellement mu dugg liir idéologie bi ñu am fu ñu toog ma ak moom ñu waxtaan wax ko sama gis-gis jour boobu la ma encouragé tracel ma nag ligne defal nii defal nii defal nii ba nii ma intégré biir Pastef nekk ci ba keroo yàlla di ko jël ci àdduna saa yu ñu toogee conseil la may jox. lan moom mooy avancé loo ci politique xam na lu bëri bëri bëri bëri xam na lu bëri. ci réew bi lu bëri la xam caaxaan yi fi nekk nii bu fi newoon du am caaxaan yi ñuy dund nii actuellement Sénégal waatal naa la ci yàlla billaahi bu dundoon ba tey jii. kon caaxaan di dagg na bu yàgg. oui mois de mars fekk na ko fi même bu fekkee déggoon. non dama ne xam nga mois de mars. comme li ñuy naan mois de mars. Euh, amaana lu bett sénégalais yi yëpp la lu bett sénégalais yi yëpp la mais yii mujjee am nii bettul kenn parce que ñëpp gisoon nañ ko ne mu ngi ñëw moom laal ne bu ko fekkoon lii mujjee am nii lu am ak fii ñu tolloo nii ci Sénégal duñ ko toll. oui yónnee huissier bi nga ni ci contenu bi xamoo waaye lu. loo am la lu mën a confirmer la lu am la bien sûr lu am la. xamoo lu ñu jublu jubluwaay bi. non jubluwaay ji ñëpp xam nañu ñëpp xam nañ jubluwaay ji laal la c'est parce que sa waay dafa simple. yow nan lañu mën a jëlee benn dossier attee ko fii tey yoon may la yow accusé bi. délai un mois pour nga mën a dugal recours may ki nga parti ne la un mois pour mu mun a dug dugal recours bu fente ne amul satisfaction ci jugement bi les deux côtés hmm. waaw kële nan la mën a génnee ci audience bi jaakaarloo ak média yi wax satisfaction ci procès bi dem toogu quelque temps après ñu convaincre ko ne ko non parce que dossier bi nii mu demee nii du lii lañu si jublu woon comme ti es l'acteur principal il faut pousser le le pion dugalal appel mu dugal appel c'est son droit le plus absolu mais au moment ko ñu nangul ko droit am boobu pourquoi pas mënuñoo respecter les droits du président Ousmane Sonko pour mu dugal recours am il a il avait un délai jusqu'à un mois. kenn bañaloo ko. mais kenn non si dañ koo bañal parce que buñ ko bañalul woon duñ taxañ taxañee appel bi à 17 jour mënul nekk ñoom kay dañoo waroon toog bu délai boobu passé un mois bi passé na ah recours kee lañuy gis mais beneen partie bi dugalul recours ëllëg si bu ñu atewaatee bi à la rigueur mais tel n'a pas été le tel n'a pas été le cas moo tax ma ne san dossier caaxaan boobu dossier caaxaan ñoom ñoo la gën a xam ne dossier boobu ñàkk nañ ko. Ah xam nañ ko. naka lañ ko xamee. xam nañ ko ñoom ñoo la gën a xam ne dossier boobu ñàkk nañ ko te dossier boobu mënta fexe fexe fexe fexe ba tere Ousmane Sonko doon candidat ci senegal ak beneen dossier bu ñu mën a yëkkati kaay moo la benn affaire. Hmm. nga. xam naa ne laajagoo ma ko mais di nga fay egsi mais ma jiitu la ci gis nga la candidature di président Ousmane Sonko hmm? hmm. réalité la Macky na jël bikk ak fëy noté ak ñi mu àndal le 2 avril 2024 passation de service bi muy wax du kenn moom la Ousmane Sonko bu neexee suñu borom kon nañ bàyyi seen caaxaat yi. waaw mën nga ko wax mais ci diggante bi ngeen fay yegg lu ne jaar na fa te aussi tamit ñi koy joxe askanu Sénégal la aussi jàpp leen ni war ngeen mën a respecter leen te bàyyi leen ci seen ci seen teyu bakkan ñu yegg ca loolu. le fait que euh, ngeen ciy taxaw di ko wax nii. foofu nga waxee noonu. pourtant pourtant li ma wax foofu laa ko teg. ah mooy askanu Sénégal. parce que la candidature du président Ousmane Sonko li ñuy naan demande sociale sénégalais yi ñoo ko soxla. sénégalais yi ñoo pare pour fal ko. d'accord comme dugg nga ci dañ ci dañ ciy soobu da nga junj sànq ci bi ngay wax bi ma la wax nii nekkoon nga prison génn nga ci dossier bi mu ngi ci. Hmm. loxo yoon jeexagul waaye am lu mu ci junj mooy nii xeexu politique la te ci biir yi la ñu gis scénario bu ni mel ca assemblée nationale tàmbalee ci yéen bul woon Sonko ñu bëri ci yenn du ngeen nekk député ñeen ci leader yi rawatina seeni ndaw ya fa nekk tontu également scénario bi ni mel ngeen gis ko ca assemblée nationale wane désaccord ci diggante yéen ñi bokk yi kon yàgg na. mooy li may ne man. Yewwi Askan Wi lii fa nekk nii dama koy sant yàlla c'est l'histoire qui m'a donné raison mm. Mm. c'est l'histoire qui m'a donné raison lii yépp xew nii ci biir Yewwi Askan Wi laajal képp ku dëkk Kër Massar wala ñu ma daan déglu man dama daan toog ni la jël sama portable rek créer sama bopp sama conférence de presse di audio di envoyé rek di wax samay xalaat di ko waxee fu ne dara bettuwuma ci tous bettuwuma ci te lii ñu gis nii. Hmm. ci biir Yewwi Askan Wi. Hmm. volonté bi ñu gis nii. Hmm. lu tuuti la lancement la. lu tuuti grand coup bi mu ngi ci ginnaaw. excès